الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل سهر رمضان على سائر السحور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات وتجارة التي لن تبورا وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحيم الرحمن الذي خص سحر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم السحر فليصمه والصلاة والسلام على من قال من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu àq ci weeru màgg wi di ñaan yàlla subhanahu wa taala lépp luñ ci ci jaamu mu néew mu bari yàlla nañ ko yàlla nangul lépp lu nu tarxiis yàlla nañu yàlla jéggal du ubbi ak yéen benn tomb bu tudd sirru ramadan mooy secret bi tax sunu borom subhanahu wa taala woor loonu weeru koor ndax woor weeru koor ponk la ci ponki lislaam li benn keno la ci keno yi lislaam benn piye la ci piye yi nga xam ne moo téye lislaam waaye dafa bokk ci piye yi gën a dëgër ëpp importance ci jaamu yàlla gi nga xam ne moom la ñuy jaamu waaye mbokk yi weeru koor dafa nekk weer woo xam ne ci weer yi gën a rëy pour eggloo nit ki ci yàlla jegeloo ko yàlla subhanahu wa taala weeru koor weer la woo xam ne day jegeloo nit yàlla ay daraja ñoo ci feeñ yoo xam ne doomu aadama du ko woon foog waaye yàlla da ko ko ci dimbali di ko ci may ak yëg-yëg ndax ci la sunu borom subhanahu wa taala di fuugloo jaam bi jaam bi mën a lekk mën a naan làqatu fu ko kenn gisul waaye mu gëm ne sunu borom subhanahu wa taala mi ngi koy fuuglu mu bàyyi lekk bàyyi naan ci jamono jum ko mënee loolu moo tax koor mbokk yi nekk benn keno benn piye benn bunt buy feeñal ne jaam bi ku nangul yàlla la ku gëm yàlla subhanahu wa taala la loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñuy nettali ci xadisu qudsi bi yàlla subhanahu wa taala wax ne kullu amali ibnu aadama lahu lxasanat bi athari amsaliha illa sawm fa innahu lii wa ana ajzi bihi koor day wone pas-pas bu doomu aadama fas digganteem ak boroomam ngëm-ngëm bu doomu aadama gëm digganteem ak boroomam taxawaay bu doomu aadama taxaw digganteem ak boroomam bàyyi lekk bàyyi naan bàyyi lépp lu jëm ci bànneex diggante doomu aadama ak soxnaam wala diggante soxna si ak ku góor gi sunu borom subhanahu wa taala tere ko ko ci bëccëgi weeru koor fa muy xëddee ba ba muy julli timis diir bi fa muy jàppee ba fa muy doge diggante bi ñu tere ko ko doomu aadama bi taxaw di wane pas-pasam bu mu fas ci yàlla ngëmam gu mu gëm dëgg gu mu dëggu digganteem ak boroomam moo tax yonent bi ne sunu borom subhanahu wa taala nee na doomu aadama ay jëfam yépp moo ko moom ba mu des koor koor sunu borom subhanahu wa taala ne doomu aadama man maa ko moom man nga ko defal pourtant julli gi yàlla lañ ko defal aj yàlla lañ ko defal yeneen jaamu yàlla yépp yàllaa ko moom waaye lan moo tax mu sette ci koor ndax pas-pas bi ci nekk xiif ak mar ak bàyyi lépp sunu borom subhanahu wa taala moo tax mu ne moom moo ko moom fa innahu lii man yàlla maa koy fay dama koy fulandi sax su ma koy fay moo tax sunu borom subhanahu wa taala mu ne koor bi nga xam ne doomu aadama daf koy woor du bàyyi lekk kese du bàyyi naan kese waaye léppam day woor mbokk yi jaamu yàlla yi koor moo ci gën a jafe loolu moo tax ñu ubbi bunt sunu digganteeg yéen pour fàttali sunu bopp fàttali leen sirru ramadan lan mooy koor lan mooy secret yi yàlla subhanahu wa taala def ci koor li anna ramadan kullahu asrar weeru koor yépp ay secret la wa huwa sirrun bayna al abdi wa rabbi secret la bu dox diggante jaam ak boroomam sunu boroom subhanahu wa taala bëgg xamal doomu aadama li tax ma sant la nga koor lenn kese moo tax ma sant la ko lenn pour nga am ko ci mooy lan mooy ab taqwa ragal yàlla jaamu yàlla yépp li tax yàlla sant ko jaam bi na ko def mooy pour mu am taqwa mboolem jaamu yàlla yi julli koor joxe azaka aj màkka saraxe jàng alquran yii yëpp sunu borom subhanahu wa taala sant ko jullit na ko def lu dul pour mu am benn mbir mooy at taqwa ya ayuha nnas ibudu rabbakum alladi xalaqakum walladina min qablikum laallakum tattaqun ee yéen nit ñi jaamu leen yàlla mi nga xam ne mooy seen boroom seen borom boobu nga xam ne moo leen bind bind gaa yi leen fi jiitu woon ñi leen jiitu woon ci kaw suuf nekkoon fi yàlla jële leen fi indi leen yéen ak ñooñu yëpp li tax yàlla bind leen sàkk leen mooy pour ngeen jaamu ko dafa mel ne dañ ko laaj ne ko waaw yàlla buñ la jaamoo lan lañ ciy jëlee mu ne laallakum tattaqun pour ngeen am ragal yàlla ragal yàlla bi ko borom xam-xam yi di firi dañu ne mooy def santaane yi bàyyi tere yi kon ndeke mbokk yi ragal yàlla googu tax yàlla di ñu woorloo maa hiya taqwa allati yambagi an natajammala biha lan mooy ragal yàlla goo xam ne war nañ koo am ci weer wi ba bu weer wi jeexee ñu des ak diplôme boobu tudd taqwa ragal yàlla googu mooy lan xataa ci yére sax sunu borom subhanahu wa taala dafa ne nanu sol yére ragal yàlla wa libaasu taqwa zalika xayr zalika min ayati llahi laallahum yadakkarun ba ci yére li tax sunu borom subhanahu wa taala di ñu sant nañ ko sol mooy ñu am yére ragal yàlla ba ci yére sax di nga gis yére ragal yàlla ak yére ku ragalul yàlla di nga mën a dugg ci mbedd yi dugg ci pénc yi di xool ay nit mën a waat sa digganteeg sa borom diw mi yére yi mu sol yére ku ragal yàlla waaye diw mi yére yi mu sol yére ku ñeme boromam la ba ci yére ndeke mbokk yi yére sax day jural nit ragal yàlla waxuma laag nag jaamu yàlla yi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala sant nañ ko pour ñu am at taqwa pour ñu am ragal yàlla bu dee koor loolu moo tax yàlla sant ñu ko bu dee aji màkka loolu moo tax yàlla sant ñu ko fa tazawadu fa inna xayra zadi taqwa hatta jàng alquran sax sunu borom subhanahu wa taala li tax mu wàcc alquran mooy ñu am taqwa xuzu ma ataynakum bi quwa wazkuru ma fihi laallakum tattaqun alquran bi sax li tax sunu borom subhanahu wa taala wàcce ko mbokk yi mooy pour ñu am ragal yàlla naka noonu aj naka noonu tabaski lan yanaal allaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaaluhu taqwa minkum yàlla nee na soxlawuma xar mu rëy mi du béjjin yi du yàpp bi du kawar gi li ma soxla ci li tax ma sant leen tabaski mooy ngeen am ragal yàlla ku rey nit nañ ko rey sax loi yooyu yàlla sant ñu loi yi nañ ko appliqué mooy pour ñu am taqwa walakum fi lqisaasi xayaatun ya ulil albaabi laallakum tattaqun ndeke mbokk yi ay biñ ubbee woon moom la ñuy feddaliwaat jaamu yàlla yépp li tax yàlla sant ñu ko mooy pour ñu am taqwa pour ñu mën a dund dund gi yàlla gërëm ci kaw suuf mooy ñu nekk ci lu yàlla gërëm mooy taqwa nekk ci bëgg-bëggu yàlla li yàlla bëgg ñun ñëpp ñu ànd nekk ci loolu mooy taqwa mooy def li la yàlla sant sori lim la tere loolu mooy taqwa képp koo xam ne li yàlla santaane yaa ngi ci guddi ak bëccëg gëmal ne yow am nga taqwa li yàlla santaane képp ku koy jalgati yëgal ne da ngaa manqueel ku war a góorgóorluwaat nga ixwaan yi war nañu xool ñun ñëpp ci weer wi ñu ànd jéem a góorgóorlu pour am ragal yàlla googu waaye ñu jéem a tëral ay yoon yoo xam ne moo ñu ci yeggal ak kayfiyatul xusul alayha min xilaali hadihi al muhadarat war nañu tëral ay yoon ay doxalin ay waxtaan yoo xam ne dinañ eggloo ci ñu egg secret koor ñu xam ko ñun ñëpp ñu trouvé ko ñu jéem a xool yan yoon la ñuy jaar ba yërmande yàlla ngërëmam kontaanteem taqwa boobu muy wax ñu jéem a xool ñun ñëpp nuñ ko amee ci weer wi ngëm yàlla googu nga xam ne moom moo tax sunu borom subhanahu wa taala di ñu woorloo moo tax sunu sunu borom subhanahu wa taala di ñu xiifloo di ñu marloo ngëm yàlla googu mbokk yi lii woote la nidaun min rabbika alkarim ayuha alhabib woote la gu jógee ci sunu borom subhanahu wa taala mu lay woo yow soppe bi yow soppeem bi yow jaamam bi taamalhu wa tadabbarhu xool ko bu baax yitte woo ko xerawlul ci woote bi déglul tafakkar fii xalaat ci ndax dafa am ku lay woo ku lay woo mooy sa boroom yow soppe yàlla bi yow xaritu yàlla bi yow jullit bi sa boroom moo lay woo xerawlul ci woote gi déglul xalaat ci laalla wa asa an takuna min almuttaqin amaana boo dégloo woote bi nga xerawlu ko amaana xëj na nga bokk ci gaa ñooñu nga xam ne ñooñu la sunu borom subhanahu wa taala di tagg ne ñi am nañu ragal yàlla qaala taala fi muhkami tanzil ya ayuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun sunu borom subhanahu wa taala mu ne ee yéen ñi gëm yàlla kan moo woote yàlla ñan la woo ñi ko gëm kon nit ñi li ñuy bari bari yépp yàlla ñenn rek la woo ñi ko gëm ndax yéen ñi gëm yàlla yéen a ngi dégg yàlla ne farataal naa ci yéen koor comme ni ma ko farataale woon ci gaa yi leen jiitu woon dafa mel ni nit ñi dañoo laaj yàlla waaye yàlla lu tax nga ñuy sant koor lu tax nga ñuy sant xiif mar mu ne laallakum tattaquun ndax ngeen màng sama kontante sama ngërëm te mooy ngeen def li ma santaane bàyyi li ma tere moo tax ma leen di woorloo qaala ibnu kasir rahimahullahu taala borom xam-xam bu mag bu ñuy tuddee ibnu kasir ci firikatu alquraan yi nee nañ aaya bi borom bi subhanahu wa taala moo ko wax di wax ak ñi ko gëm muxaatiban lil muminin min hadihi l umma ñi gëm yàlla ci xeet wii wa amiran lahum bisiyam mu leen di sant koor kon lan mooy koor sunu borom woo ñi gëm di leen sant koor wa huwa al imsaak an itaami wa sharabi wal jima mooy nañu terew lekk ak naan ak sëy waaye ndax dañuy xëy rek bàyyi lekk bàyyi naan bàyyi sëy rek ñu ne woor nañ déedéet day ànd ak bi niyatin xaalis lillahi azza wa jal day ànd ak yéene yéeney aji koor yéeney jaamu yàlla moo tax xadis bi gën a rëy ci xadis yi boroom xam-xam yi di ubbee seen téere yi ci wàllu jaamu yàlla di nga gis ñu dugal ci xadis innama al amal binniyat comme ni ko al imaamu nawawi ubbee ci téeréem boobu mu tuddee arbauna nawawi ixwaan yi yéene ci la yàlla di faye lépp kon yow mi woor yéeneel yaa ngi bàyyi lekk yaa ngi bàyyi naan yaa ngi bàyyi sëy ndax jaamu yàlla bul xëy rek bàyyi lekk bàyyi naan bàyyi sëy ngir da nga woor waaye yéene ko yéene nag ci xol lay nekk kenn du ko wax ci làmmiñ ndax wax ko ci làmmiñ bidaa la kon yéeneel da ngay bàyyi lekk bàyyi naan bàyyi sëy ànd ceeg yéene bu sell ngir jaamu sa borom subhanahu wa taala li tax lima fihi min zakati nufus ndax bàyyi lekk bàyyi naan bàyyi sëy dafa am lu ci yàlla denc pour defar doomu aadama pour raxas bakkanam laabal ko ba doomu aadama set wicc pour doomu aadama mën a set ci ay bakkaaram jikkoom mën a rafet mu génn ci yenn jikko yu ñaaw yenn jikko yu tilim yenn jikko yu koy suufeel pour doomu aadama yëkkati ko am daraja bu kawe ba egg ci boroomam moo tax sunu boroom subhanahu wa taala sant ko koor ndax gis nga boo woorul caaxaan yi bari mun nga cee dugg ci xool ci déglu ci laal ci dem ci wax ci jëf parce que wooroo mais boo xëyee woor léeg-léeg nga dégg sax kenn ci ñun ku xëy woor am nga dégg nga dégg ku ne dama woor dimbali ma rek dama woor bul yàq sama koor gi gis nga te soo woorul woon loolu waa ji bëggoon def da nga ciy participer yenn saa yi loolu xale yi di wax dugal ci sa grain de sel waaye gis nga boo wooree da ngay taxaw ne waa ji dimbali ma bul yàq sama koor kon koor mbokk yi dafa nekk jaamu kaayu yàlla boo xam ne su ko doomu aadama defee day laabal bakkanam laabal jikkoom ci ay tilim tilim ay manqué manqué yu ko doon gàllankoor ba du egg ci borom bi moo tax boo ko defee sunu borom subhanahu wa taala ne sa jikko day set dangay laab sa jikko day rafet li anna sawmu fihi tazkiyatun lil badan waaye koor tamit ba tey def ci nekk luy yar yaram cër yi benn bu nekk koor daf koy yar ba cër bu nekk xam boppam bët xam ne moom mooy bët day xool waaye du xool lu ko neex naka noonu nopp naka noonu gémmiñ naka noonu tànk naka noonu loxo naka noonu cër yi ci des ba ci awra bi benn bu nekk day xam ne kat ah liberté gi ma amoon ci waxtu wu nekk may def lu ma neex liberté boobu jeex na weer wi moom bokkatu ci mbokk yi ci yàlla subhanahu wa taala waaye koor nekkul rek luy rafetal jikko di raxas bakkan di segg jikko bi di ko defar ba mu baax waaye day tëj bunt yi nga xam ne seytaane ci la waroon jaar dugg ci yow ndax jàngeen ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne inna shaytaana tajri ala ibnu aadama majra dam seytaane day daw ci yaramu doomu aadama comme ni deret bi di dawe ci moom soo wooree buntu yooyu seytaane waroon jaar dugg ci sa yaram jaxasoog sa deret ak sa yàpp koor daf koy tëj ba seytaane du la mën a dugg kon ixwaan yi ñu ngi ñaan buur yàlla subhanahu wa taala li yàlla denc ci koor ci ay xéewal ak lan mooy koor yàlla nañu ko yàlla màngloo waaye mbokk yi ku woor foog mu garde kooram fa yaraka allah ya axi alxabib axlisi niya lillah sellalal sa yéene ngir yàlla bul woor ngir di ñaa ngi woor bul woor ndax kër gi man dong maa fi nekk su ma woorul damay am gàcc léeg-léeg nga gis këli kilifa ci kër gu dul woor ak bëri ci kër yi ay paa yu dul woor ay kilifa yu dul woor léeg-léeg ñu tëj benn kilifa ci kaw ci étage ci kaw ci ay ruqu pantre mu bañ a woor kër gi ñëpp woor xale yi ndaw yi sax xëy woor nga gis borom kër gi bañ a woor mbokk yi nan ragal yàlla ñu xam ne dund gi lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg bis a ngi ñëw di nga dugg bàmmeel kon nanu ragal yàlla ñu xam ne dund gi amul solo am am bi amul solo costume yi jaagar jaagar yi oto yi lal yu nooy yi alal ji amul benn importance soo jaamul yàlla ëllëg subhanahu wa taala jàngeen ci alquran ñi nga xam ne dañoo amoon nguur te daawuñu jaamu yàlla ñi amoon alal daawuñu jaamu yàlla ëllëg yawmal qiyam dañuy taxaw ci kanamu yàlla di fëgg seen dënn naan ma aghna anni maaliya ay waay man ndeke sama alal jëriñu ma nga dégg ñeneen ña ca wàlla wa naan xalaka anni sultaaniya ay waay man sama nguur alak na ma kon ndeke alal ji bum la tax nga bañ a woor am alal rek ba mu ba fuuy nit ñi di woor nga naan man mënuma woor di rulle say ar di tubaab tubaablu man mënuma woor lu tax lu tax mënoo woor lan moo la dal feebaroo dara jotu la parce que da nga am alal tàmm nga lekk lu neex tàmm nga naan lu sedd tàmm nga tëdd ci lu nooy tàmm nga tëdd fu féex moo tax nga ni mënoo woor waaye bisa ngi ñëw lekk yooyu nga doon lekk yu neex bisa ngi ñëw dootoo ko lekkati di nga woor fal force keroog bu malaakal mawt ne roseet sa ruu ba ci sa bëli waa kër gi tiit ku nekk naan wooy yàlla na kii tëdd fii wa zanna annahu lfiraq kalla ida balagati taraaqi wa qila man raaq wa zanna annahu lfiraq waltafati saaqu bisaaq ila rabbika yawma idin ilmasaq balaa lal teree woor bisa ngi ñëw di nga woor fal force bisa ngi ñëw malakal mooti dina ne roseet sa ruu ba mu egg sa put sa bëli njaboot gi wër la doomi naan la bàyyi papa ñun la soxna si naan la nijaay man la nga ni lacc yàlla nee na ma téye gémmiñ gi dem ma làmmiñ bi doo wax keroog looy tontoo mooy say rongoñ mooy tuuru yàlla mun a yow mi tëdd fii tey ku la xool dina xam ne yow wa zanna annahu lfiraq leer lena tey adduna pare nga ci lekk gu neex pare nga ci pare nga ci lekk pare nga ci lal pare nga ci yére pare nga ci alal suñ borom subhanahu wa taala mooy sant malakal mawti mu rocci sa ruu ñu jël la yóbbu la ci morgue ba dugal la ci kees laxas lay sagar ay waxtu yu néew ñu ñëw futti la ba nga set sang la sang la saañ lépp loo xam ne ci yow pax la yeew la ba nga dëgër teg ci kanamu jàg ji teg ci kanamu jàkk ji ne ilimaan pare nañ ana ana oto ba keneen moo ci yéeg dootoo ci yéeg sama benn xarit daf ma woo téléphone barki démb ca bitim réew mu ne ma fa am benn waay bu neen xaritam bu doyoon waar suñ ko ne woon julli day saaga suñ ko nee koor mu saaga suñ ko nee jaamu yàlla mu saaga képp ku ko wax loolu dalay saaga benn bis waa ji ne ko tee ngaa jaamu yàlla yëgal ne bisa ngi ñëw sa kër gu rafet gi sa oto bi sa soxna si bisa ngi ñëw boo mooy tuul beneen waaye mooy dëkk ci kër gi takk soxna si tëdd ci sa kaw loolu tëdd ak moom waa ji daal ne kon ma dëkk ci sama bàmmeel ñëw nangam waa ji ndeysaan wallahi ba ko waa ji doon wax loolu boobu kenn xamugul woon luy xew mbokk yi waa jooju moo feebar fii ci Sénégal ñu yóbbu ko bitim réew di ko faj yàlla def mu faatu foofu ba muy dem mi nga ànd ak soxnaam ak doomam waxtu wi may wax ak yéen soxna saa ngi ténj kon nit na jaamu yàlla ku la ne jaamul yàlla olof yi nee nañ ku la ne sangul sa taar la bëgg mbokk yi yéen jullit yi nga xam ne saytaanee leen mën ba weeru koor bu jotee ngeen di tëju ci néeg yi di génn sax yenn saa yi di tàggoo seen kër da ngeen a woor dem ba ca bureau yi di tëju di lekk di yendu ci restaurant yi añ ngalawaay yéen ragal leen yàlla ci weer wi am leen xorma ci yàlla rus leen yàlla rus leen weeru koor rus leen jullit yi ngeen di xotti seen xorma di añ ci seeni kanam ak tux ci seen kanam di leen xër saxa saxaaru cigarette am leen xorma ci weer wi li gën a yées ci réew mi mooy di tiitaroo islam di tiitaroo quatre-vingt-quinze pour cent musulman te du feeñ fenn weeru koor restaurant yi jaay lay ñu ngi soññ njiiti réew yi ñu ngi soññ kilifa diine yi di soññ ñi jiite réew mi fekkee diine ñor na leen war nañu génne ay loi wax ci weer wi dara taxul réew mi di deltu ginnaaw lu dul ñàkka xorma gi ñu xormaal yàlla subhanahu wa taala di tuddoo ay jullit te doo gis mbirum jullit googu feeñ fenn ci ñun ok weeru koor weeru sutura la même boo woorul war ngaa mën a dugg ci ruq def li ngay def génn ndax wooroo ndax da nga am ngant waaye da ngay séen ay jullit yu ne léng ay ponkal ay borom kër góor ak jigéen ñàkk bañ a woor te dégg ngeen ñu ne koor day defar bakkan di defar ruux di defar jikko di yar nit ba mu egg ci borom bi subhanahu wa taala loolu moo tax ñu bëgg ki koy def na sellal yéeneem yéene ne day woor ngir am ngërëmali yàlla woorul ngir xiif woorul ngir mar woorul ngir sàmba ngir demba woorul ngir dafa woor ngir allah subhanahu wa taala sellalal sa yéene sa digganteeg sa boroom ak sa naafila sellal ko ngir yàlla laallakum tattaqun yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla moo farataal ci yéen koor ma sunnaal ci yéen weer wi sunnaal ci yéen taxawaay bi naafila guddi gi moom yonent bi mu ne man qaama man saama ramadan imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi wa man qaama ramadan imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi képp ku war weer koor dara taxul nga woor lu dul ngëm ak sàkku tiyaaba bëgg yiw ngir sa borom kontaan ci yow lii moo tax nga woor ndeke ki woor li tax muy woor muy ngëm imaan waaye ihtisaab bëgg tiyaaba bëgg yàlla kontaan ci moom bëgg yàlla gërëm ko yonent bi nee na ku def loolu yàlla dina la jéggal say bàkkaar waaye ku taxaw naafila tamit dara naafiloowu la lu dul ngëm yàlla ak bëgg tiyaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla dina la jéggal say bàkkaar ixwatal imaan nanu sellal sunu koor sellal sunu yéene ndax ñu màng li taxqiqi maana taqwa ngir ñu mën a màng ngir ñu mën a am loolu ñu naan taqwa muy ragal yàlla ngir ñu mën ko am abdurahman assaadi rahimahullah mu ne laallakum tattaquun pour ngi ñu am ragal yàlla mu ne koor dafa nekk ci sabab yi gën a rëy yi indi taqwa inna siyaama min akbari asbaabi taqwa moo tax gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu bëggee yar ndaw yi dafa ne yéen ndaw yi ku ci mën a takk soxna takkal ku mënul takk mu ne wooral yaa maasara asabab man istataa minkum albaata falyatazawaj wa man lam yastati mu ne fa alayhi bisawm fa alayhi bisiyaam aw kama qaala alxabibu muhammad sallallahu alayhi wa sallam yéen jullit yi yéen ndaw yi képp ku ci mën a takk soxna takkal ku munul mu ne na nga woor ndax koor moo lay aar mooy sajjuloo sa xef mbokk yi kon koor daf bokk sabab yi gën a rëy yi indil nit taqwaate mooy ragal yàlla li anna fihi imtisaalu amrillah ndax ci koor day wane ne yow mi ko def danga wuyu woote yàlla danga jël santaane yàlla danga jàpp ci ndigalal yàlla subhanahu wa taala waaye danga moytu li la yàlla tere képp koo xam ne nag li yàlla wax danga koo def li yàlla santaane danga koo def sikki nekku ci ne li yàlla digge nga am ko ku dégg yàlla woote nga wuyu mu wax nga def mu santaane nga jëfe sikk nekku ci ne yàlla buy joxe teraangaam nga njëkk ci séddu kon ndeke doomu ndey koor ndigal la gu bàyyi ko ci sunu boroom muy boroom jaam ñi jëm ci jaam ñi mu woo leen sant leen ko ndax ëllëg bu ñuy séddale teraanga yi ñu mën a pekk ñu mën a màng mun a ànd moom koor ak fuug lu yàlla subhanahu wa taala doomu aadama bi mën a bàyyi lépp loo xam ne ay caaxaan la te mënoon koo def ci lekk ak naan ak sëy ak yeneen yi nga xam ne doomu aadama xam na ko yépp nga daal di koy sànni ngir bëgg sa bëgg-bëgg boroom sa bànneexi bakkan xeex ak sa bakkan comme ni ko borom bi subhanahu wa taala waxee ci alquran wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa an ilhawa fa inna aljannata hiya almawa képp koo xam ne da nga xeex ak sa bànneexi bakkan fexe ba li yàlla subhanahu wa taala bëgg nga taxaw ci nga xeex ak bakkan bi bañ a jaamu bakkan bi nga jaamu borom bi sunu borom subhanahu wa taala nee na yow de kër googu tudd aljanna dinañ la ko tarale bokk na ci fa bi siyaami yadaaf nufuz mbokk yi ci koor ci la doomu aadama di tëjëb bànneex yi nga xam ne ñooy jaar ci bakkanam di egg ci ruuxam pour ruux du set ci koor la doomu aadama di tëje loolu waaye ci koor la doomu aadama di tëje bunt yi nga xam ne ci la seytaane di jaar di dugg ci yaramam comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ndax ki woor day li tax loolu di tëju lu tax seytaane di ko daw ndax ku woor day bëri lu muy jaamu yàlla tuksiru fi taat day bëri lu muy jaamu yàlla jaamu yàlla googu muy bëri nag moo koy yóbbu ba lépp loo xam ne tiyaaba la daf koy am day jege yàlla subhanahu wa taala da ngay gis ki woor day dem jàngi alquran day naafila guddi su bëccëgee muy def ay istighfar di naafila bëccëg yi di socc gémmiñam set fu mu toll ku ko laal sax mu jéggal la di saraxi alalam tiyaaba yooyu muy def yu baax yooyu muy def moo koy yóbbu moo koy yóbbu moo koy yóbbu ba mu jege borom bi subhanahu wa taala ruuxam daal di set kon mbokk yi nañu xam ne koor yàlla subhanahu wa taala ci la yemale jaam ñépp ki am ki ñàkk ki wér ki feebar mag ak ndaw ku weex ak ku ñuul ku gudd ak ku gàtt ñépp la ko allah subhanahu wa taala yemale borom alal bi bu wooree ki amul alal boor ñoom ñaar ñooy yem ñooy bokk lu ñuy yëg ñooy nuroo nu ñuy xiifee nu ñuy maree bépp coono ñoo koy bokk moo tax yàlla subhanahu wa taala ci koor ngay gis jaamu yàlla bu mu yemale doomu aadama yi ñépp yem ci ñépp ci tolloo kenn du wax ne borom alal bi dafa am alal moo tax bu bu wooree du xiif abadan kee dafa amul alal moo tax bu wooree muy xiif ñépp ci tolloo bal sax yenn saa yi ki amul alal mooy tane ndax moom dana tàmm xiif loo xamante ne borom alal ji du ko tàmm loolu moo tax ñi ëpp ci borom alal yi du ñuy woor ndax du ñu tàmm xiif léeg-léeg nga dégg jullit bu ne man duma bëre mbapat lu mu ci jublu mooy man weeru koor ba weeru koor rek laay woor leneen sama yoon nekku ci mbokk yi ndekkee incha allah ci kàttanu yàlla subhanahu wa taala dañuy ànd ak yéen ci suri sirru ramadan secret yi weeru koor pour ñu xam lan moo tax su suñu borom subhanahu wa taala sant nu koor pour ñu màng diplôme bu rëy boobu suñu borom subhanahu wa taala wax ñu mooy laallakum tattaqun axi lxabib idan alhadafu alasma wal ala wallazi nas'a ilayhi jamian min siyamina wa qiyamina huwa taqwa allahi jalla wa ala mbokk yi ci yàlla jubluwaay bi gën a rëy bi gën a kawe ñun ñëpp ñu dox jëm ci ci sunu koor gi ak sunuy naafila nekkul lenn lu dul ñu mën a am ragal yàlla at taqwa diplôme bu mag boobu moom mooy jubluwaay bi li tax nit bàyyi lekk bàyyi naan di xiif di mar lu ne mu dugg ci lenn taxul rek lu dul mu am diplôme boobu tudd taqwa fa hal ya tura xaqaqna taqwa allahi jalla wa ala fi shahrina alkarim mbokk yi ndax ñu ñëpp nañ ànd xool ndax ragal yàlla googu ku nekk càmbar ko ci sa bopp ndax bi weer wi tàmbalee léegi ndax am nga ko ci sunu weer wi su fekkee amoo ko nga góorgóorlu jéem a xool li des ci weer wi nooy def ba peeg ba am ragal yàlla ndax weer wi bu jeexee te amoo ci taqwa mooy sa koor kenn du ko nangu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naan rubba saa'imin fa laysa lahu min siyaamihi illa al ju wal atash am na ku woor ba ngoon jëlewul ci kooram dara lu dul xiif ak mar loolu musiba la lekk ni mu neexee nga bàyyi ko naan ni mu neexee nga bàyyi ko ak sëy ak yeneen yi ci aju yépp nga bàyyi ko ndax ne da ngay jaamu yàlla nga nekk ci weeru yàlla ba weer wi jeex ñu buub li nga doon def yëpp dajaleel la ko dugal ci mbuus sànni ji polli mbalit pertange weesuwul loolu lu ko waral mooy jaam bi dafa xool kooram lan moo ko doon aar lan moo ko doon yàq fuukluwul fexewul nan lay def ba egg ci jubluwaay bu mag boobu moo tax doomu aadama boobu daal di perte izan ixwatal iman wa zaharat xaqiqataha fi aqwalina wa amalina wa fi kulli cheyin min umuri xayatina alyawmiya est-ce que koor gi xool nañ naka lañ koy dëggale ci sunuy wax ak sunuy jëf ak sunu mbooleem mbir yi ñuy dund ci sunu vingt-quatre heures est-ce que koor gi jeexital na ci sunu dund dëgg-dëgg ki war dëgg-dëgg koor day jeexital ci dundam ci vingt-quatre heures am fa mu xëyee fajar ba ngoon ba muy dog ba weer wi di jeex da ngay gis koor gi di feeñ ci dundam ci ay waxam ku woor bu waxee ñu xam ne kii dafa woor su jëfee ñu xam ne kii dafa jëf suy dox ñu xam ko su toogee ñu xam ko lépp lu muy def ci vingt-quatre heures bi dañuy yëg ne kii kat dafa woor kii kat dafa nekk ci jaamu yàlla kii kat dafa tënku moo tax ñuy laaj ndax dëgg-dëgg koor gi jeexital na ci sunu dund ñun ñi woor ndax ne feeñ na ci sunuy wax ndax feeñ na ci sunuy jëf ndax feeñ na ci sunu mbooleem 24 heures dund gi xoolal ki woor toog di déglu musique kee di kee ngay tàccu kee ngay fecc ñee ngay xumbal ñee ngay saraxolle ñee nga ca ndox ma ñee nga ca xale jigéen yi ñee nga ca col gu bon gi ah ñee nga ca dóor seeni martu ana koor gi kon koor du bàyyi lekk bàyyi naan bàyyi sëy waaye dafa ñëw pour defar la ba nga mën a set yëlëbu set wicc ci say tilim-tilim ak say bakkaar natamanna zalika wa narjuhu wa nasaluhu almazid min fadlihi ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala ñun ñëpp mbokk jullit yi ñu màng tiyaaba bu rëy bii ñun ñëpp yal nañ ko yàlla may ñun ñëpp yal nañ ko yàlla baaxe ci ngëneelam ak ay xéewalam di ziyaare mbokk jullit yi di ci jiital waa kër gi mooy waa TSL ak ñi jiite barab bi suñu techniciens yi ci weer wi ñu leen ci ziyaara di leen baalu àq di leen baal àq di ziyaare parents d'élèves école imam Ali ibn Abi Talib mosquée Guédiawaye mosquée Roi Baudouin ak waa Daaru Salaam ak waa Géejawaay koñ bi ñu dëkk mbokk jullit yëpp dafa dëkk yëpp ñu ngi leen di ziyaare ci weer wi di ñaan yàlla subhanahu wa taala yal na yàlla subhanahu wa taala may leen ba ñu màng njëriñ ji nekk ci weer wi ixwatal iman asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh